suuratu yasin war a tàmbalee ci bopp aaya 13 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أن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 أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين الحمد لله رب العالمين noongi bàyyi ko woon fi borom bi taala wa tabaarak dinu xabaare dinu xamal ne ne way dee yépp danañu leen dekkal gannaaw ga ñu génne la ñu jiitaloon ci ay bakkar ak tiyaba ndax ñoko jëfon te bind nañu ko ak jeexital yalu fi bayyi won jangale kat qur'an bi su dekke dana fekk ñu mu jangalon ñañu jangalon ñañu jangalon ba fa mu yem lol lepp nek asaruhum muy seeni jeexital ki génne woon sarax joxe dana am loola ki génne woon alalam joxe dana ko am ki defoon lu baax ki julli woon ki jaamu woon yàlla ki wooroon ñoom ñépp seeni jëf ma nga seen kanam te danañ ko jot waaye it danañu jot wa asaarahum seeni mbir yenu bàyyi woon ci seen gannaaw te it ñu koy jëriñoo walla ñu cay loru ki bàyyi woon ay kasetu musique génn àdduna ñuy teg ay kasetam ay nit di ci fecc walla ay kàddoom ay nit di ci réer wala ay jëfam ay nit di ci sànkoo loolu it dana teew dara du réer borom bi daal ci tënk daal nee wa kulla shay'in fi imaamin mubin mu bàyyi loolu ñëw ci asxaabul qarya muy ab dëkk boo xam ni danoo amoon buur bu saay-saay buur boobu ak na ci bew ak na ci yëg boppam ba ni yàlla la na ko nit ñi def yàlla jël armeem jël polisam jël ay nerveem ne leen nañuy sillonné ci dëkk bi képp ku fi jaamu keneen ku dul man nañu ko tëj kaso ba mu sonn ñu laaj ko lu tax mu di ko def su delloo ginnaaw xayrun su dellul ginnaaw nañu ko rey ñooñu ñooy asxaabul qarya bi mu ko defee am ñaar ñoo xam ni yàlla yabal na leen muy Jean ak Paul ñoom ñëpp nekkoon ay yonent ñi koy wax Paul ak Yohanna ñu ñëw fa commencé faa dugal باتوا لا إله إلا الله جامو يالا تب يالا وادك برغل بلني مجي موي بني أكويدي لتحمدين شو qissa boobu dafay dugg ci programme koor gi ñu koy sard muy qissa bu spécial moom la borom bi naan yow muhammad sallallahu alayka wa sallam wadrib lahum na nga saddal waa quraish masalan ci ab léeb xam naa ni weddi nañu la suufeel nañu la xas nañu la waaye jox leen misaalu waa dëkk ba dëkk ba fan la Intakiya la ci Turki la muy Intakiya ne dëkk boobu ba ñu weddee yàlla buuru dëkk ba nekk saay-saay bew ba sàkku ne nanu ko jaamu nanu ko topp ne yónni naa ñaar ñu dem fa ngir waar leen bi ñaar ñooñu demee ngir waar leen delloosi ne waa dëkk ba weddi ñaari yonent yooyu ne leen waxu leen dëgg yàlla yónniwu leen borom bi ne mu dolli ca keneen ñu nekk ñett nag ñëw di waar waa dëkk ba moom lay wax ni wadrib yow muhammad saddal lahum ñeel leen muy sa nit di waa Quraysh masalan misaal wii te mooy asxaabal qarya muy waa dëkk boobu nga xamante ni nee nañu dëkk ba in la tudd ma nga ca Égypte ma nga ca Turquie ne id jaaha ba nga xamee ne dikkal na waa dëkk boobee ak dëkk ba ak seen buur ñan ñoo leen digal al ay yonent yu bàyyi koo ci yàlla yàlla tànn leen yónni leen ñu ñëw ne waa dëkk bi kenn du jaamu nit yàlla la ñuy jaamu buur bi merti ñi ànd ak buur merci waaye teewul ñaari yonent yooyu bi ñu ñëwee indi li yàlla indi ngir ñu bàyyi jaamu xërëm te topp yàlla taala wa tabaarak kennal ko wéetal ko gis nga baatu kennal baatub wéetal kenn rekk lañu ko war a tudd jëme ci moom muy yàlla kenn warta wax ni nañu kennal diw nañu kennal Umar Sall kennal leen Umar Sall loolu baat bu ko gën a ñaaw amut ndax Umar Sall du kenn nit la ñaata nit ñoo fi nekk kon ki ñuy kennal mooy ki waral lépp ki ñuy delloo ak ngërëm ak cant bu jéggi dayoo mooy ki nga xamante ni moo waral lépp mbindeef kenn du ko kenn ndax nekkul kenn kon nag loolu la yonent yi ñëw ngir waar ci waa dëkk bi ñaar ñooñu ba ñu ñëwee waar leen diire bu yàgg borom bi ne fa rekk rek kazzabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar yàgg na ci ab yonent ñëw waar aw nitam ne leen ragal leen yàlla ñu ne ko fittee waar aw nitam ne leen topp leen yàlla ñu ne ko sunu yoon kon kat ñaar ñëw nañ wax ne yàllaa leen yónni amul ci kaw suuf ku mës a wax ne yàllaa ma yónni muy dëgg lu dul nga am jafe-jafe kon yàlla mooy tànn ay yonentam heure bu ko neexee nu mu ko neexee fu mu ko neexee bi mu jëlee yonent yi nag am na ci ambiya am na ci mursaluun mursaluun mooy ñi ñu tànn yónni leen bi ñu leen tànnee yónni leen jox leen mission ngir ñu ñëw ci dëkk ngir waar leen ngir waar leen dëkk ba ñuy ñëw en général day fekk ne dëkk boobu du ñu ay jullit ay yéefar lañ yuy jaamu xërëm yu xamul daara yuy topp bakkan ngir yàlla tànn yónnee ñooña muy tànn na ñu nekk mursaluun jamono bu nekk day am lu leen di xaar muy weddi bu jóge ci seenu xet toroxal wu jóge ci seenum xeet ak xeebaate ak neen loolu yàlla def na ko di ko def ba ci yonent yàlla isa alayhi salaam isa nekk nabiyun mursalun min ulil azm isa nekk ku ñu solo yónni ko mu bokk ci juróomi boroom décision yi mu nekk ku nu yónni ci nasaara mu ñëw am yaay te amul baay coow la ni kur jeexut diggante isaa nag ak yonent bi sallallahu alayhi wa ay siècle dox na ci yàlla tànn ci li ko soob ci li ko neex mu tànn ab dëkk boo xam ni màkka lañu nu koy wax màkka googee am na yonent bu fa jiitu muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent boobee dafa ñëwoon làq ci njabootam ak préparer njabootu njabootam muy yonent yàlla ibrahim ànd ak soxnaam haajara ak doomam ismail gis nga loolu bi isa génne àdduna digganteem nit ñi amuñu yonent kon lan moo fi des kom diine diine isa moo fiy des ñuy dem a dem di dem a dem di dem a dem iblis ak njabootam ak ni mu mënee yàq lu bëri yàq na ko ci kaw suuf tey te ñu bëri xamuñu ko mën naa ñëw fekk nit ku baax du am ci moom soxla day wane mbaaxam rekk du wane mukk njuumteem day jël nit ñi ngir ñu yëkkati waaju baax bii loolu def na ko ci dëkk yu bari ci àdduna bi ba ci sunu Sénégal gi boo seetloo dëkk yi mu ci gën a réussir Sénégal bokk na ci senegal ngay fekk nit ñi di ñemee yëkkati kàddu yoo xam ni danga naan ndax xabbatu xardal ci ngëm yàlla mi ngi léeg nga dégg ay nit sànku te jàpp ak réer ñu naan sant leen diw bu dul woon diw du ngeen fi jaamu yàlla muy kàddu goo xam ni ma anzala allahu biha min sultaan Sénégal ngay dégg li yàlla defal Sénégal defalu ko benn dëkk loolu Sénégal da nga koy dégg mu mel ni senegaal moom ginnaaw lépp lu baax Sénégal la ko yàlla def loolu ngay dégg Sénégal ngay dégg yowmal qiyaam bu ñu dekkee ku àndul ak diw doo dem àjjana loolu Sénégal nga koy dégg moo doo dem ci àdduna bi fenn nga dégg ko doo dem Burkina Faso dégg ko ba Togo bërki démb bii doo ko fi dégg diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Isa yàlla teg ca beneen yonent muy muhammad mu yónni ko ci Quraysh yonent bi def trente trois ans quarante ans yoo xam ne yónni wuñ ko yónni wuñ ko ginnaaw quarante ans yàlla yónni ko kon diire mission yonent bi vingt trois ans la vingt trois ans ci diire boobu la ko yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa defar fi àdduna defar nitu àdduna yi ak xeex bi ñu ko xeex yépp mu réussir defar nit ñi ba ñu xamante ni dem nañu ba taw del si waat yonent boobu nag defe naa ñun ñépp gëm nañ ni moo mujj ci yonent yi bal ku gëmul lu mel noonu sa njullite dañ koy xoolaat képp ku ne jullit nga te gëmoo ne muhammad mooy dernier yonent yow sa ngëm yàqu na xaw ma wax jooju seetlu ngeen ko walla déet ma ni képp kuy woote woo jullit te gëmoo ni muhammad sallallahu mooy dernier prophète yow sa ngëm dañu koy feetaan alquran yaxal na ko sunna yaxal na ko yonent bi wax na ni sama ginnaaw beneen yonent du amaat kon ñu baax mën nañoo am waaye baax ba àgg ci yonent moom dootul am ñu baax mën nañoo am waaye àgg ci nag rasulullah wala nabiyullah ha loolu moom gaa yi moo tax tur bu na da koy dégg Sénégal xalilullah danga koy dégg nit ku nekk ut na turu boppam askanoo ko boppam yonent bi dem na ba àgg ci ni dina am ñu woote woo yonent waaye waxuñu dëgg kon loolu dafa bokk ci coono bi sonal yonent yi mooy saxal dëgg dëgg soo ko bëggee saxal il faut nga nangoo affronter fitna caaxaan ay saaga lu nekk da ko dégg tey nag bu yonent bi génnee àdduna ñu dem ba léegi koñ boo tourné dégg fa ku woote woo yonent wala ku ñu fa woote woo yonent ñaar rek moo mën a am ki ko woote woo en âme et conscience su nit taxawee ne yàllaa ma yónni bu taxawee ne yàllaa ma yónni taxaw ne man yonent laa moom moomu ci boppam premier àtteem mooy yéefar la lan moo ko ko def lu ko ko def mooy weddina risaalatu muhammad te diina ji balaa nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah ba muy jeex loo wa anna muhammadan rasulullah kon boo gëmee ne yàlla dalaa yónni nga nekk yonent ah kooku nag dañuy xoolaat sa mbir dañ naan yow sa mbir feebar dikk na ci kon loolu moo tax waa dëkk boobu di intakiya bi leen ñaari yonent yi dikkalee ngir waar leen borom bi nee na fa kazzabuhuma ñu weddi leen ndax yàlla yónni na ñaari yonent id arsalna ilayhim usnayni yàlla ne yónni naa ci waa intaakiya ñaari yonent waaye gëmuñu yonent yooyee weddi leen yàlla daa ah xaaral ma dolli leen beneen aman nañu gëm su ma yokkee troisième yonent danañu gëm borom bi ne fa azzazna ñu daal di dëgëralee ñaari yonent yooyee bi saalisin ci ñetteel ñaar ñi ñëw nañ ne yàllaa ma yónni ñu ne leen waxu leen dëgg li ngeen wax du dëgg yàlla yónniwu leen diire bi yàgg na ak liñ leen wan ci kéemaan yépp waaye teewul yàlla dolli ci troisième yonent ne fa azdaf naa nee ñu daal dëgëralee bi saalis ci ñetteel ñu mujj a nekk ñetti yonent léegi nag ñett ñooñu ba ñu àndee yëgoon ni yàllaa leen yónni ñoom ñépp ñu xam ko seen mission mooy ñu ànd ñoom ñett ngir woo waa dëkk bi borom bi nee na ba ñu agsiwaatee fa qaalu danoo wax wax ak waa dëkk bi lan lañ leen wax dañ leen wax ne inna ñun ñett yi day mursaluuna ñu ñu yónni lañ ilaykum ci yéen kon kat dañ ñoo yónni ci yéen te ñun ñett ñi ñépp yonent lañ kenn ki mi ngi tudd Yuhanna kenn ki mi ngi tudd Paul kenn ki ñu naan ko Habibullahi Najjar am na ci mufassiruuna yi ñuy wax loolu léegi bi ñu waxee waa dëkk bi ne leen yàlla ñu yónni borom bi ne fasaasa rek waa dëkk ba daal di tontu wa waa dëkk ba ne leen maa antum déet yéen illa basharun dara ngeen nekk nit rek misunu naa comme ñun ay nit yu simple ngeen rek yàlla yónniwu leen déedéet dangeen di wax rek kon ma antum illa basarun misluna yéen daal nekku leen lu dul ay mbindeef yu mel ni ñun yéen dangeen di lekk dangeen di naan da ngeen di dox ci marché yi kon lan ngeen ñu gënee ba yàlla tànn leen yónni leen ah da ngeen di wax rek yéen yàlla yónniwu leen te nag وادك بي يخ دي نيلن وما انزل الرحمن يالا دي واتيوت من شيء تي دارا بن وحيو يالا واتيوكو كون يوم ويدي نانيو رساله بي ويدي نانو نيغا خامني يالا يوني نلين وما انزل الرحمن من شيء yalla wattewul dara dara dara ne ah in antum deet yen dal illa takzibun bata ngeen nekk ay fenkat ñu mujj ne yonent yi yéen waxu leen dëgg yéen daa mel ni da ngeen di kat ci waaye yónniwu leen kon nag yéen ñii gëmuñu leen in antum illa takzibun li ngeen di woote woone yàllaa leen yónni loolu mënuñu koo gëm mënta nekk dëgg ne yonent ya commencé nag di tontu borom bi ne na xaalu eh dama xool ma wala ma tàkkale di dàqante mama borom bi nee na yonent yi daal tontu xaalu ñu ne leen rabbuna sunu borom day moom yaalamu dana xam ne xam na ni inna naka ñun ñii day la mursaluun ñu ñuy yónni lañ ilaykum ci kon ñoom feddali nañu risaala gi ñu leen yónni لين يلا خمن لي يلا نيوني الله أكبر ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون سنو برام خمنني دنو يوني تين ñun nag wa ma alayna déet di war ñu illa al balaagu al mubin lu dul jotali bu bir gu fës قمت وما علينا إلا البلاغ المبين كون جوتلي غبير مونو وار نخ يالا مونو كسانت يالا مونو وخ نني لين و كون نكو ما علينا ديت دي وار ال الا البلاغ المبين لدول ني جوتلي jottali gu bir waa dëkk ba tontuwaat leen borom bi ne qaalu waa dëkk ba daal di nañuy wax ci tontu muy asxaabul qarya wax yonent yooyu ne leen innaa naka ñun ñii day tatayyar naa gaaflu nañ bikum ci yéen yéen ñii ñëw fii ne ay yonent ngeen da ngeen a gaaf amu leen xaalis amu leen mbokk amu leen ak jur amu leen i tool yàlla buy yónni du fekk ku ñàkk mu yónni ko kon yàlla buy yónni borom mi bokk lay te yéen ñii ñëw fii di wax nii da ngeen kon yéen daal tatayar naa bikum ñun daal gaafal nanu leen léegi nag fa la nu yem li ngeen di wote bàyyi leen ko su ngeen bañee nag ba la in lam tantahu su fekkee ni daayitaluwu leen dellu ginnaaw ci seen wote bii nee la narju narjumannakum danañu leen rajmo danañ leen jam ay xeer wala yamassannakum badana dana laal leen adaabun mbugal alimun bu taratar minna bu bàyyi ko ñun kon nag su ngeen bàyyiwul li ngeen di wax lii ngeen di woote lii ngeen naan yéen ci nekk daal lanarjumannakum kon danañu leen rajmu wala yamassannakum nee dana laal leen <coughs> minna bàyyi ko ci ñun azabun mbugal alimun bu tar xaalu yonent ya day jóg ngir tontu leen ne leen taairukum seen ak gaaf maakum mi ngi ànd ak yéen li ngeen di wax ni ñun ñoo gaaf loolu ci yéen la nekk ñun gaafuñu de yéen yéen a gaaf ñun gaafunu yee tamit da ngeen di toog ni xale yi di yàq rek ngeen toog di seetaan du ñu xam lu ñuy def ne inna ñun ñii tatayar naa bikum génn ko foofu ñun day gaafal nañu leen léegi nag la in lam tantahu su fekkee day teluwu leen la narjumannakum danañu leen rajmu wala yamassannakum dana laal leen adaabun mbugal alimun bu tar min naa bàyyi ko ci ñun qaalu yonent ya daal di leen di tontu ne leen taa'irukum seen ak ngaaf day mi ngi jóge ci sababu seen ak weddi maakum ba mi ngi ànd ak yéen yéen da ngeen a weddi yàlla nekk yëfër kon gaaf mi ngi yem ci nekk yëfër nit bu xëse ba nekk yéefar rek daa dinay gaaf kon nag taairukum maakum léegi nag a in zukkirtum moo ndax yéen bu ñu leen waaree rek ngeen bëgg indi ay lay a cam yéen waar bal li fi nekk daal antum yéen qawmun aw nit ngeen yoo xam ni musrifuun ñuy yàq ci kaw suuf ngeen yéen daal da ngeen di yàq di indi fitna di indi jafe jafe léegi nag borom bi ne wajaa daa lay dikk bàyyi ko min aqsal madina ci gën jaar sori ca dëkk ba benn waay moom it ñëw na ca dëkk ba ca kër yu sore ya ca tum intaaki ya nee na benn waaye ngi ñëw rajulun ab boo xam ne yasaa ma ngay gaawantu di daw kooku la woowee xabibullahi najjaar ñu ne xabibu najjaar moom gëmoon na yonent yi amoon na imaan gëmoon na moom bi mu ñëwee li ko indi woon day ñëw moom it ngir dëgëral yonent bi ñu yónni ñële moo tax bi mu ñëwee qaala wax na ni yaa qawm ay yéen samaw nit ittabi'u lmursaliin topp leen ñii ñu yónni te kat jullit bu baax noonu lay mel day topp ku koy wax dëgg day topp ku koy wax yàlla nee na waaye sama maam ne sama baay ne sunu waa dëkk ñoo fi gën sama maam yàllaa ko yónni sama maam nangam la nangam la nangam la loolu dafa yomb moo tax wa jaa rajulun min aqsal madinati yasaa ma ngay daw de قال مغنان يا قوم اي سمنت ني اتبعوا واي واي توبلين المرسلين ني ني يون ني يوننتي يوننتي دي لين لا خالص دي لين لا دار خنا رك يالا ني لولا لين دي واخ كي لاي جانغال nak تلاجو لا دار كوكو koku dang ورا wara moo tax kon ittabiu topp leen man koo xam ne laa yasalukum du laaj leen ajran benn yoon su ngeen di topp da di topp ku leen laajul benn fay ki lay waar te yàlla tax kooku na nga ko topp na nga ko déglu intérêt ci waar la mooy yàlla gërëm ko rek waaye xaarul ci yow nga fay ko dara dara dara waaye imagine nga topp aw mbooloo moo xam ni lu ngeen am dajale ko jox ko ko benn waaye ngeen yëkkati ko ne mooy waaja rek di ko jox et pourtant yonent yi yàlla yónni ñoom laajuñu moo tax mu ne ittabiu topp leen man waajoo xam ne laa yasalukum du laaj ajran benn fay ci li leen di jottale ci woote gi te waxum ñoom muhtadun way jub lañu di jubale su ngeen di top da ngeen di top ñu jub ba pare di jubale kon jublen leen and ak ñi allahu akbar kon habib na jaar mi ngi def ci mission bu maga maga maga mag ndax ñew na di seddali ñi ci leen yalla yonni legi nak mu ne o loog man bé laa abudu duma jaamu alladi borom ba nga xam ne fatara ni bind na ma xabibu na jaar ne nit ku ñor dëgg-dëgg mooy kii xalaat ne lan moo tee jaamu yàlla ak li ma yàlla defal mbokk yi da xool li la yàlla defal may la wér gi yaram te xéewal bi gën a rëy ci xéewal yi mooy wér-gu-yaram yàlla may la ko feebaroo làggiwoo pattoo ñaareelu xéewal bi mooy xel mu sell dofuloo jinne jàppul moo tax ñetteelu xéewal bi mooy nga am jot soo bëggee génn génn soo bëggee dem dem soo bëggee toog toog tey boo doon laaj nit ñi bi gën a rëy alal lañ lay wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi na ñaari xéewal a dafa réer nit ñu bari xamuñ nicmataani magbunun fihima min kulli naas ñaari xéewal a ngi nii dafa réer nit ñu ne ko ban ak ban la mu ne asihatu wal faraaw wér gi yaram ak liberté am temps loolu dara gënu koo rëy kon yàlla may la nga wér nga nekk ndaw say bët di xool say nopp di dégg say loxo di jàpp sa tànk di dox nga ànd ak salaam ak aafiya danga war a jaamu yàlla waaye léeg-léeg nga xool ponkalum jëm ponkal lool ñuul kukk ngandeen loos wi tolloog bu kenn waxati nga war a dem liggéey nga sukk gàdd dara naan ay wa masata nangam nangam damaa la xasaay ngir nekk nangam nangam ñàkk fayda weesut loolu di nga daje ku la sarax boo nattoon sa bopp natt ko yaa ko ëpp doole waaye moom xam nga lu mu la ëppale mooy courage ak jom te la ëppale yow nga suufeel sa bopp toroxlu boo demoon fee nga yenn saaku pataas wala saaku ñàmbi ñu fay la dana lew lool te doo ci am ak suufe ki ñor mooy ki delloo yàlla boppam xam ni li ko yàlla defal du jeex te mënu koo fay moo tax mu ne wa maa liya laa abudu alladi fatara loog man ba duma jaamu yàlla mu ma bind yàlla bind na ma te wa ilayhi jëm si na yàlla turjaxuun la def fi dellu waaye ñun ñëpp war a dellu ci yàlla kon lan moo tee ma jaamu yàlla comme bis day ñëw ñu dellu ci yàlla naa jaamu yàlla balaa ñu maa delloo bis a ñëw ñu takk say loxo takk say tànk laxas la jébbal la borom bi kon góor góorlu mu ne man a attaxisu moo ndax danaa jàpp min duunihi wuli si yàlla aalihatan ay xërëm man duma ma topp xërëm du bàyyi li ma sama borom jàngal duma bàyyi li ma diina wax kon nag a attaxidu moo ndax damay jàpp min duunihi wuri yàlla aalihatan ay xërëm in yurid ni rahman te man xam naa ni suma yàlla nammalee bi durrin ci feebar bi durrin ci lor laa tugni du jëriñ an ni wulis ma shafaatum seen ak ràmm ñoom yàlla ya ma doon jaamu xërëm ya doon jaamu ña ma toppoon yaakaar leen ñooñu munuñ ma jëriñ dara suma yàlla na leen mbugal mbaa mu sono ma ne wala yunqadun te sax munuñu ma xettali ci bu ma yàlla nammee teg dara moo tax yonente bi ne sànne woon yaa fatima salini min mali ma shiti fa inni la ugni anki min allahi shay'a yonente bi ne fatima sama alal laaj ma lu la neex ma jox la man daal mënalu la fa yàlla dara dara dara kon nag Habibu Najjaar ne kon laa tuxni du jëriñ an nii wuris ma safaatom seen ak ràmm ñoom xërëm bi sey an dara wala yunqaduun te ñoona mënuñ ma xettali su ma yàlla yi mbugal kon su ma defee loolu inni man idan ba tey la fi dalalin aji nekk laa ci réer mu biinin bu mbir su fekkee ni topp naa bànneexu bakkan kon dama réer man daal maa ngi leen di wax yéen waa dëkk bi ne leen inni man abibu najjaar amantu bi rabbikum gëm naa seen borom de fasmaun na ngeen ma déglu man gëm naa yàlla de du buur bii laa gëm gëm naa yàlla du police yi laa gëm waaye buur bii wax naan dañu ko jaamu du ku ñuy jaamu ndax mbindéef la man yàlla rek rek rek laa gëm kon gëm naa yàlla dangeen ma déglu amantu bi rabbikum fasmaun allahu akbar bi mu waxee wax bu am solo bi jaay bakkanam ngir waaraate ngir delloosi ngir indi njub ndeysaan génn àddina borom bi ne xiila waxeef na ko udxulil janna bi mu waaree ba pare ndeysaan dañu koo rey bi ñu ko reyee yàlla ne ko duggal àjjana sacrifice bii nga def nii àddina rek laa la koy fayee mooy qiila duxulil janna lenn ci salafu saalix nee nañu avant ñu koy rey dugg na àjjana moom na Najjaar avant ñu koy rey dugg na àjjana léegi nag bi mu gisee fay bi ko borom bi wan wan ko àjjana nii mu di ko xool ndax sacrifice bi mu def loolu moo ko gën a may courage ndax ci dëkk boo xam ne ku ne buur bi du buur ñu rey la ay yonent ñëw di waaraate ñu weddi leen ba yeew leen yow nga jóge sa kër daw bërti bërti bërti daw ñëw ñu ne na la nga ñëw taxaw ni topp leen ñii yaa qawmi ittabi'u mursalin ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa muhtadun ay yéen sama ni topp leen yonent yi topp leen ñi leen du laaj dara te ñu leen di jubal ah dëgg dëgg nag kii sacrifice bu rëy la def bi ñu ko jàppee moom it ngir war koo rey lenn ci baadu salaf nee nañu boromam da ko wan ajjana ndeysaan waaye luñ ko ca tegal dañu koo rey borom bi ne xiila waxeef ko udxulil janna duggal ajjana léegi dugg na ajjana allahu akbar yal nañ ko yàlla may bi mu duggee àjjana qaala ma nga naan yaa layta qawmi yaalamuun allahu akbar moom dugg na àjjana mi ngi wër ci keppaaru àjjana yi naan yaa layta qawmi yaalamuun aka neexoon sama nit ñi xam aka neexoon ñu xam bi maa xafara lii rabbi li ma sama borom jéggal allahu akbar yal nañu yàlla xare àjjana yal nañu yàlla may àjjana يالا يالا ماي عزم يالا يالا ماي صدق يالا يالا ماي تقوى يالا يالا ماي ايمان خولا ميغي جبيلي فان لاي كبير الجنه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أكن نيخون واتركي تركي waa intaakiya ñama rayoon ngir rek kàddu gi ma doon wax ak a neexoon ñu xam yaa layta qawmi yaalamuun léeg-léeg ñu jàpp nit rey ko fekk dañ koo teel a yóbbu àjjana te xamuñu sax bàyyi woon ko sax mu ne ci kaw suuf moo tane woon moo tax mbokk yi daawa bii sunna mii gaalu yonent yàlla nuux la ku ci dugg waroo ragal bu la dee tax ragal xamal ni li nga nekk dëgg la ci la yonent bi nekkoon ci la saxaaba yi nekkoon ci la nit ñi baax nekkoon kon jarul tiit ku la fi tiital naan la boo duggee sunna ñu dal sa kaw ñu nangam nangam boo yore jàkk sunna ñu la nañu ko tëj ngir jaay la doole yooyu yooyu dafa teer à dafa teer dafa am loo xam ne boo koy def aw nit danga leen di may ngëm danga leen di chargé mais déchargé woo leen kon moo tax Habib jaar dugg na jana ndax jaay na bakkanam wax te yàlla tax moo tax a ne yaa layta qawmi yaalamuun aka neexoon sama nit xam bi maa xafara lii rabbi ca la nga xamante ne jéggal na ma ko sama borom wa jaala ne sama borom def na ma من المكرمين ما بوكو تي ني موي تيرال يالنا ني يالا تيرال يالنا ني يالا تيرال يالنا ني يالا تيرال يالنا يالا نانغول ني سونو كور ني فيبر يالنا لين يالا سافر ني نياك يالنا لين يالا جوخ سونو خول يي يالنا كو يالا تيل بوبم اللهم ثبت اقدامنا اللهم ثبت اقدامنا على طاعتك wansurnaa yaa rabbal alamin incha allah ba subak jàmm damay waxaat li ma rek comme dañoo gën a tardé wat tey xëy na peut-être suba ñu am chance su tàmbale trois heures pour xaw a jël temps tuuti incha allah rabbi wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh